Il en est ainsi depuis plus d'un siècle. Depuis qu'un homme que rien ne semblait prédestiné aux yeux de ses contemporains à l'inspiration divine autorisant la grande exhortation à appeler ici, sur ces terres gagnées jadis par l'idolâtrie, les hommes et les guides à venir à ses côtés, adorer le Maître tey ndajewu tey bi euh, ndaje la boo xamante ni ñu ngi ko amal ci ndigalu son excellence monsieur le président de la république Macky Sall. mi ñu sant bi appel bi bi ñu dëgmalee appel bi ñu woo mobiliser service su état bi yëpp ñu taxaw ci wetu comité d'organisation bi nga xamante ni ñu miin seen liggéey lañ te xam ko ñu koy rafetlu ngir lépp loo xamante ni état war na ko taxawee ngir jàppale leen gunge leen ba bu ñu yeggee ci appel bi organisation bi nekk loo xamante ni. ni ñu ko daan defee at mu ne ak état bi nu mucc ayib lay doon ñu ngi jël nuyoom ak ziaram di ko teg ci loxo Seydina Mouhamadou lamin lay mi fegoo ak Seydina Issa Laye ak comité membre comité d'organisation bi yëpp ngir ñu tegal ko ci loxowu xalif général des Layènes di Seydi Mouhamadou Makhtar lay appel bi nag ku ne xam na solo bi nga xamante ni am na ko ak ngëneel yi nga xamante ni da koy wàcce ndax lépp ci diine la tënku ku ne gis na ni communauté layeen di fonctionner te loolu moom dafa ëmb humanité ndax message bi nga xamante ni Seydina Limaamu wàcce na ko indi ko yeesal ko ci kaw suuf dafa nekk message boo xamante ni ñëpp ci mën a jariñu te dara génnu ci diine te li am ci appel bi mooy tudd yàlla ak fàttali ndax booy déglu waxtaan yi da ngay gis ni saa su ne liñ fay fàttali mooy dellu ci yàlla tuub teg tegu ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu nekk loo xamante ni ay gëneel kese la lamboo saa yu ñëwaatee dañ koy yàkkamti ndax ñaan ya fay jóge ñu séentu ci yaakaar ci te amuñu sikk ni suñu borom dina ko dogal mu wàccee ay xasanaat ci Sénégal wàcce ko ci Afrique waaye wàcce ko ci àdduna bi yépp di wax ne si tënk tey moo nekkoon dernière euh, gisee ci wàllu état ñu njëkkee woon ak euh, CDD bi nga xam ne préfet moom moo ko euh, présidé woon CRD ñu def ko gouverneur moom moo ko présidé ñu ñëw tey ak ministre de l'Intérieur ñu koy gërëm nag bu baax lu tax parce que ci fànn yu bëri dafa def mbir mi yëfam pourquoi parce que ay service am daf leen ne désiderata yu comité bi am maanaam sàkkuteef yu comité bi am rek dama leen demandé bu leen sax wax ne mën na nekk wala mënul nekk wax leen ne mën na nekk waaye yeneen membres yi également réunion bi yeneen service état bi yoo xam ne dépendrul nga sax ci moom bu ñu matulee moom jël na ci engagement pour mottali ko loolu moom dañ ko ci sant parce que innovation la ren ministre de di jël engagement it et nu ko maanaam séance tenante pour satisfaire bu besoin comité bi globalement euh, ci ci li gën a yaatu mën nañu wax ne suñuy demande satisfaire nañ ko quasiment à à quatre-vingt-dix pour cent maanaam lu ëpp si suñuy sàkkuteef mën nañu wax ne am nañ si satisfaction li concerné li service yi état bi waroon def fekk appel bi mën naa wax ne li ci ëpp sotti na euh, sécurité maanaam kaaraange ak wàllu ndox ak wàllu dëkkuwaay yi wàllu sellal gox-goxaat yi wàllu set wàllu wérgu yaram mën nañu wax ne li ëpp si li ñu doon demandé service yi mu concerné jël nañ ci ay ay matukaay ñuy wax ne nag Ageroute particulièrement annoncé na ne balaa appel bi di am di des ña ñaari fan dinañu jël au maanaam mercredi prochain dinañu ubbi VDN bi xam ne moo doon sonal waa waa Cambérène ak ñi doon jaare noonu sonn incha allah loolu nag di avancé bu mag a mag waaye si wàllu ONAS itam euh, am na problème parce que ñoom dañoo wax ne par rapport ak camion vidange yi. ci wàllu set dañu wax ne camion vidange yi ñu leen demandé maanaam cinquante yi xaw ma si olof juróom fukk yi ñoom amuñu ko ñu ngi am dix loolu nag loo xam ne ñun duñ ko rafetlu waaye ministre de l'intérieur jël na si ay matukaay neen dinañ dollu dinañu dolli fukk ak juróom waaye ba tey matul ñuy demander vraiment DG ONAS mu taxaw ci fekk appel parce que problème mu set la problème mu évacuation ay ndox la bu ñu sañoon loolu ñu satisfaire ko waaye à part loolu amatuñu problème maintenant mu des nag travaux yu diis yi ci wàllu tali ak ay infrastructure foofu dañu waxtaan ak gouverneur ministre de l'Intérieur instruire ko ne ko nañ ko intégrer si comité de suivi maanaam bu appel bi passé ñu wëyal réunion yi pour mën a satisfaire besoin yooyu fii ak appel bi bii di ñëw incha allah loolu moo nekkoon si tënk li nga xam ne moom moo jóge si réunion tay bi ñuy gërëm nag si daaneel yéen journalistes yi seen accompagnement si couverture bi si CDD bi si CDD si bi ak si tay réunion nationale waaye di leen ñaan ngeen continuer ko ba ñu àgg si si appel bi ak jàmm ak salaam yann si yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam salaatan wa tasliman ala seydil wara Daouda Mbaye Daouda jibo dayala Il en est ainsi depuis plus d'un siècle. Depuis qu'un homme que rien ne semblait prédestiné aux yeux de ses contemporains à l'inspiration divine autorisant la grande exhortation à appeler ici, sur ces terres gagnées jadis par l'idolâtrie, les hommes et les guides à venir à ses côtés, adorer le maître des cieux et de la terre.